di nuyu waa Sampaate yëpp dans ce quartier je me sens comme le poisson dans l'eau parce que je suis naturellement dans mon milieu naturel fii lu mu jafe-jafe su ma fiy dugg soxlawuma sécurité je connais toutes les maisons et toutes ces maisons me connaissent parce que seen doom la parce que ñoom seen doom la docteur Babacar Diop di doomu Sampaté te su ma duggee Sampaté les dimanches les week di def porte à porte di dem ci grand place yi damay seetlu ni waa Sampaate bëgg nañu ma mais lu ngeen ma bëgg bëgg naa leen fukkam ak lu ko topp lu ko bëgg naa lu ëpp loolu waa Cees loolu dinaa ci ñëwaat waaye di nuyu oustaz aussi mbër ñaa yi ngeen ma wax ni ma mi ngi ci délégation bi mi ngi ci mbooloo mi lii ñu def nag gis naa sax ay nit ñu ni politique ndax saison politicien yi maanaam élection ñëw na waaye yàlla dafa def ci suma relasion ak waa Thiès ak jeunesse su ak doomi Thiès du politique moo ko lal man dama daan jóge université Cheikh Anta Diop vacances 2004 2005 ñëw sacrifier samay vacances école bi nekk feeñ ñi koy wooye école xaaxaam jël sali di def cours de vacances ba école tëj benn parent du ma jox craie bu ma koy jënd ca booba maay jënd craie di organiser les cours de vacances ba vacances yi jeex booba xanaa kon dama doon politique ñaari ñetti at ci ginnaaw dañu fi def ay cours de vacances ci CEM El Hadj Amadou Ba bi def fa ay cours mathématiques français histoire géographie PC mais def ay cours ak élèves bu CM2 yi ak CM1 xanaa booba kon dañu doon politique. bi cours de vacances yi jeexee ñu jël xale yi nga xamante ni defoon nañ cours de vacances yooyu xale bu def cours de vacances te bari woo woon loroon tardé ñu jël ay cahier teg ko ci seen loxo te booba élection amul dara xewul ñu def il trois ans ci place bii ñu taxaw tous les meilleurs élèves de Sampaté tous les meilleurs élèves de Sampaté ci place bi ñu taxaw fi ma primer tous les meilleurs élèves de Sampaté xanaa kon loola aussi politique la su ma diggante ak yéen politique lalu ko bu élection ba jotee lu leen neex def leen su leen docteur Babacar Diop doyee ngeen votel ko bu ko bu leen kaneen doyee ngeen voteel ko du tee bu déwénee les cinq cent lots yi ñu fi indi bëgg nañ mu nekk ay mille ay deux mille ay junni junni junni junni loo kon ñun dañuy doomu Thiès di delloo njukkal cees à travers li ñu xam ndax jàngalekat laa université Cheikh Anta Diop dama daan jóge fii ci Sampaate di dox di dem lycée Malick Sy fukki dërëm yu ma duggee kaar awma ko ma xam ni jàng méttee xam ni parents yi sonne ma jàpp ni li ma yàlla wërsëgal sëgal rante fukki dërëm la war naa ko bokk ak waa Thiès bokk ko ak Sampaate ma jóge fi mu metti ma dem ndakaaru jàngi ci jamono boo xamante ni nit ñi jàpp nañ ni ku demul bitim réew jàngoo wala sam njàng sottiwul yàlla dimbali ma ba may nekk lycée Malick Sy lañ ma jëkk a def proposition de bourse étrangère université la ma fa fekk ci ay bourse étrangère kenn xamul nu mu toll musuma jël bourse étrangère dem jàngi ca yàlla dimbali na ma ba ma jàng ba dégg docteur waaye loolu waxuma ko ngir ndamu dama ko wax ngir sama yaay yi nekk ci sama wet sama jigéen yi nekk ci jataay bi war a gunge seen doom alxamis mu jàngi ngeen xam ni lu jamono tar tar tar lu jamono metti metti na ngeen toppatoo seen doom jooju mu jàngi ndax li leen metti ronqooñ yi nga xamante ni mooy dal ci seen dënn doom jooju ba muy ñëw fompal leen ko ci njàng moomu muy nekk looloo rekk a tax ma ci wax waaye waxuma ko pour ndamu dama bëgg fii ci sampate dama bëgg fii ci Thiès qu'on ait des milliers de docteurs des milliers des centaines d'ingénieurs dans tous les domaines c'est ce qu'il nous faut pour Sampaate développer pour Thiès développer pour Sénégal développé kon big bi ñu leen jox crayon bi ñu leen jox compas bi ñu leen jox li tax démb dama dem Sandaga ma discuter discussion bu métti ak commerçant bi nga xamante ni moo ma doon jaay prix yi cheroon mu ni ma mais docteur jarul matériel géométrique mais ma ni ko defal ma ci matériel géométrique parce que dama bokkoon ci élèves yi nga xam ne daanaka jàng naa collège ba jeexal bu ma amoon kay doy na mun mu mun musuma fàttaliku foo xam ne am naa matériel géométrique bu mat ñàkk matériel géométrique bu mat boobu nga xam ne dama ko traîner moo tax démb je ne coûte que coûte xale yi ma jox leen matériel géométrique kon loolu yi fi nekk yëpp am na matériel géométrique kon parents yi war a gunge seeni doom ñu jàngi yàlla na ci yàlla def barke kaye yi ñu leen jox yàlla ci yàlla def barke ba fii ak fukki at yeneen i docteur Babacar mën a taxaw fii ci Thiès fële ca Diamaguène fële ca Medina Fall fële ca Insan fële ca Kawsara di fa def lu mel nii ngir delloo njukkal ñu leen ko doon jox loolu rekk a tax ñu dajalee mbooloo mi kon nañu góor góorlu ci njàngum xale yi nañu taxaw njàngum xale yi ca xam ni suñu réew mii ci lëndëm gi mu nekk mënuñu ko cee génne ndax am nañu petrol mënuñu ko cee génne ndax am nañu gaz ndax am nañu zircon lii tax ñi génne ci lëndëm gi rek mooy xale yi nangoo jàng ñu wutal leen ay ecole yu baax ak ay jàngalekat yu baax ca loolu dafa nekk poñ bi ëpp doole ci sama projet politique mooy xale yi jàng njàng mu baax a baax baax baax ba dootuñu soxla di dem ay bitim réew ndax mën nañoo jàng ci réew mi tekkee ci réew mi ñibbi ci seeni wayjur di bokk ci ñi nga xamante ni ñooy tabax réew mi ngeen may ma ma nuyu FDS yëpp suñuy militant dinaa leen gërëm tey waa parti FDS ndax su ma amee fit ñoom la ñun duñu ay parti yoo xamante ni ci média rek la ñu xam déedéet te saa su ma leen musee woo lu défi bi métti métti jóg ngeen Idrissa Seck dafa nekk ci ay jafe-jafe génn ci problème mu Bakka ak mag Idrissa Seck war a def congrès d'investiture ci jamono bu xat xat di doomu Cees ma jàpp ni bu doomu Cees nekkee ci tolof tolof man docteur Babacar Diop may doomu Cees war naa jox loxo doomu Cees boobu mu génn ci jafe-jafe yooyu bor booba waa Thiès laa ko lebaloon du diri sa sekk taxoon ma def ko mais waa Thiès laa lebaloon bor boobu mu war a def congrès mu jaxasoo lool ndax semaine bi ñu waree def congrès d'investiture boobu semaine bi ko mujj parti pur dafa def congrès fële ca Dakar mbooloo ma takku ba yéeme ba Idrissa Seck ak staffam tiit ni buñ defee congrès bu amul nit campagne mën na yàq ñu contacté ma ni ma docteur est-ce bi duñ tànn beneen jour wala ñu bàyyi ko est-ce gis nga mbooloom pur mi ma ne ko waaw gis naa mbooloom pur bi ñu ne nañ dàq congrès bi ma ne leen déedéet congrès bi kenn du ko dàq coow li metti ma ne ko président Idrissa Seck leen rek laa lay wax bu dimanche 23 jotee bu 17 yi yow toogal sa kër ba di heures nga ñëw à la place de l'obélisque di nga xam mbooloo nga fa wala mbooloo nekku fa keroog à la place de l'obélisque le 23 décembre 2018 keroog bi sa Seck duggee place de l'obélisque lim ma jëkk a wax mooy docteur Balma ak parce que Balma ak mooy ñoom tardeel nañ liggéey bi. ndax hésitation yi ñu doon def à la nan congrès bi dina am wala du am mbooloo moom fa gisoon daf ko jaaxal daf ko tiital bi congrès bi jeexee lan ma wax docteur mais xale yii ngay mobiliser jeunesse bi lan nga séq ak ñoom ba mën leen a ñu jóg loolu dama bëgg nga indil ma ci tontu ma ne ko li ma ci mën a tontu de mooy ñi ci ëpp ci ñoom bañ may xamante ak ñoom soit collège Djibril Diaw la wala lycée Malick Sy wala université. dama jàpp ni ñoom xam nañ ni lu mu métti métti docteur Babacar Diop du trahir cause bi ma bokk ak ñoom peut-être moo tax saa su ma jógee ñu jóg mu ni ma ah nii nga def nga xam ni foo jógee ñu jóg man jaaxal na keroog bi ñu defee congrès place de l'obélisque boobu ci la doole idri sa sekk ñëwaat ci coalition boobu mais loolu du docteur Babacar Diop li ko maye mooy militant ak taxawaayu. FDS les Guelwaar ba fu ma wootee ngeen jóg keroog bi ñuy dem Sorano ñi amoon invité d'honneur Idrissa Seck mu waroon na ñëw soraano la veille de Sorano mu yónnee ma Yankhoba Diattara ñi ni président nee na de moom dafa bëgg a ñëw Sorano suba te Sorano am na solo trop ci moom parce que communication ba mu fa bëgg a def bu fekkee salle bi jàpp ngeen ni du fees dañoo bëgg waa réew mi waa Dakar yépp mobiliser wu salle bi teel a fees ma ne Yankhoba Diattara soo demee nga ni Idrissa Seck ñun du ku ñuy mobiliser ñun du ñun ñun la ñuy mobiliser xam nga yéen lu ñu leen di laaj yéen ak seen délégation bu waxtu waa ngeen ñëw tokki salle ba ngeen xool ba xam keroog Sorano 10 heures. sécurité Sorano dañoo tëj bunt yi ragal ni Sorano dina toj ndax mbooloo lu ko waral yéen waaj militant FDS seen Pastef seen pas-pas seen gëm projet docteur Babacar Diop keroog bi ñuy ubbi suñu permanence fii ci Thiès ma ni nañu teg 5000 places assises ñi ni ñu ko ciy toog ma ni leen bu jour ba jotee di ngeen xam kan moo ci toog ndax ay jinne lañ wala ay nit lañ ñi ñëwoon keroog mbuur 1 gis nañ lañ fa gis ci mbooloo loolu bu ma ciy ñëw dali réew mi dañuy toll ci jamono ñu jàpp ni média yi mën nañ ci mottalikoo politique ca presse bi nekk di ko encourager la prime de la paresse un parti politique ak coalition dañ koy tabax ci terrain bi parti politique dañ koy tabax ci askan wi nekk ak ñoom muy naaj ak muy taw loolu moo tax ba FDS am taxawaay bi nga xamante ni FDS am na ñu jëm ci ay élection yu am a am solo ma bëgg a wax devant la presse bi fi teew ngeen yóbbul ko waa Thiès yépp ak mbooloo mi nga xamante ni ñu ngi fi ku ci nekk soo demee nga yóbbul ko kaneen koo yóbbul ko kaneen koo ko ko kaneen ba Thiès yépp jot docteur Babacar Diop dafa am yéene bu mag a mag ci Thiès ville docteur Babacar Diop est candidat à la mairie de ville de Thiès di ci ñaan jàppale waa Sampaate yépp ma wax ak yéen Sampaate le jour des élections su ma amul quatre-vingt pour cent ci école bii jàpp naa ni échec la vingt pour cent war ngeen koo mën a am ci seen yi ak li nga xamante ni ñoo wër sampaate yépp ba jàmm gën ba es ma wax ak waa Thiès Idrissa Seck ku ko naw la ndax bu dee bëgg Thiès modèle la ci bëgg Thiès waaye Idrissa Seck du candidat Idrissa Seck bëggul il n'est pas candidat kon waa Thiès am nañ sel-sel tànnal seen bopp ki ñu bëgg mu jiite Thiès nous voulons construire une nouvelle majorité ici à Thiès avec la coalition Yewwi Askan Wi loolu lu mu laaj docteur Babacar Diop dina ko def guddi bëccëg fépp fu ñu war dem dinañ fa dem dinañu liggéey avec la coalition pour mën a bâtir une nouvelle majorité ici à Thiès. Nous voulons redonner à Thiès toute sa fierté. Nous voulons redonner à Thiès toute sa dignité. Nous voulons li nga xam ni teg nañ ko deru Thiès muy nitu Thiès te Thiès musta sëgg loolu metti waa Thiès loolu la ñu bëgg a fomp ba mu set wicc ba ñu nekk ay vrai Thiessois dignes d'être des héritiers de Ibrahima Sarr dignes d'être les héritiers de Ousmane Ngom dignes d'être les héritiers de Aynina Fall d'être dignes d'être les héritiers de Abdoulaye Ba et des cheminots de 1938 des cheminots de 1948 projet bu révolutionnaire boobu la ñu bëgg a tabax fii ci Thiès yeneen ni jamono dinaa ñëw. ci sama programme bi nga xamante ni namu nañ ko ci Thiès muy njàng mi dinaa ci ñëwaat muy environnement bi dinaa ci ñëwaat muy sportif yi veux que tous les sportifs de Thiès se mobilisent jàppale suñu candidature parce que nous avons un projet spécial pour le mouvement sportif Thiès doit avoir de grandes équipes yu mën a compétir au niveau international mën dem Ligue des champions am na ay projet ci xëyu ndaw ñi Thiès est devenue une ville universitaire beaucoup d'étudiants se mobilisent aujourd'hui à travers les différentes universités les étudiants thiessois yi nekk Dakar yi nekk Saint-Louis yi nekk Bambey ñi ngi mobiliser wu en disant que nous n'attendons que la déclaration officielle de la candidature de docteur Babacar Diop. Cette candidature n'est pas parrainée dans les salons, c'est une candidature parrainée par les populations de Thiès et la jeunesse de Thiès. Cette candidature, elle est parrainée par la jeunesse de Thiès, elle est par les populations de Thiès, elle est parrainée par les femmes de Thiès, elle est parrainée par les Jakarta même par les ouvriers, par toute la jeunesse de Thiès. Et avec vous et avec Yewwi Askan nous voulons construire une nouvelle majorité politique et sociale à Thiès. Et avec vous dañu bëgg ba fu ñu tuddee ci Thiès waa mu mën a sigi ndax Thiès waa du musta sëgg kon du tey la Thiès di sëgg kon ponki programme yooyu yëpp benn bu ci nekk dinañ ci ñëwati ci yeneen i jëmmi jamono parce que programme révolutionnaire gis ngeen environnement bi ni mu dégradé gis ngeen li xew ci suñu marché yi gis ngeen centres commerciaux yi nga xam ne def nañ ko même ci place de France ñàkk vision ñàkk ambition ñàkk xam-xam ñàkk taxawaay ñàkk weg waa Thiès moo indi loolu mais loolu jeex na gis ni ki tey ndax yéen wolof yi nii yéen a ñi dootuma sàmmi mbaam ndax sama gëleem màgg na yéen seen gëleem màgg na yéen wolof yi ni dootu leen sàmmi mbaam ndax seen gëleem màgg na yéen waa Thiès dootu leen sàmmi mbaam ndax seen gëleem màgg na yéen waa Thiès dootu leen wàlliyaan ndax léegi am ngeen mbër kon ci projet boobu ñi am war ko soumettre la coalition Yewwi Askan Wi war ko soumettre waa Thiès war ko soumettre la jeunesse de Thiès et tous les segments de Thiès dans les prochains jours dinañ leen wan sur le terrain preuve à l'appui que cette candidature, elle est parrainée par les fils de Thiès. ay kilifa yu bëree bëri ci biir dëkk muy ci wàllu diine ca mënoo bu ñu wax moo xam ci religion musulmane lañ moo xam ci religion ci catholique la moo xam ci lu mu mënti doon sont prêts à parrainer cette candidature ici à Thiès. liggéey boobu moom laa leen di woo ñu joxoonte loxo ma waxaan jigéen ñi léget boo xamante ni dix mille francs lañ leen ciy tegal dix mille francs yooyu ak ay bor yu dul jeex du ñu ñoo leen di génn ci situation bi nañu ànd ak yéen ñu defar Thiès tabaxaat Thiès def Thiès une ville durable loolu laa bëggoon a indi fii ci Thiès mais déclaration boobu mënuma ko woon a defee place de France mënuma ko woon a defee mairie mënuma ko woon a defee fi suñu siège ba nekk fële ca Mbour 1 fenn rek laa ko mën a defee mooy sama suuf fii ci Sampaate ndax fii la lépp tàmbalee te fii la lépp jeexee kon Sampaate rek ci barkay sam suufu sampaate bi ci la bëggoon taxaw ngir wax ak waa Thiès moo taxoon ma ñëwoon fii ci Sampaté defe fi déclaration de candidature. Ousmane Sonko a été victime d'une agression lâche de la part de nervis envoyés par le régime de monsieur Macky Sall qui veut aujourd'hui attenter à la vie de Ousmane Sonko. C'est la raison pour laquelle nous profitons de ce moment pour avertir la communauté internationale et que cette communauté internationale soit très attentive sur ce qui se passe au Sénégal et que cette communauté internationale sache que nous, les membres de l'opposition, si l'État ne prend pas les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des leaders de l'opposition, nous prendrons nos responsabilités pour faire face à ces différentes agressions lâches, mais aussi pour assurer notre propre sécurité. Et en ce sens, notre propre coalition a déjà fait aujourd'hui une importante déclaration et dans les prochaines heures, une conférence de presse est prévue pour se prononcer sur cette situation, ce qui s'est passé à Jigenshore et au-delà, pour avertir le gouvernement et que nous prendrons toutes nos responsabilités pour assurer notre sécurité et la sécurité de nos militants. Je voulais m'adresser aux Thiessois, qu'ils sachent que Thiès a tout donné à Idrissa Seck. lui a tout donné. Aujourd'hui, Idrissa Seck n'est pas candidat à la mairie de ville de Thiès. C'est la raison pour laquelle je pense que les Thiessois ont le droit et le devoir de choisir eux-mêmes leur propre maire. C'est en ce sens que j'ai dit sur un aspect, Idriss Seck est un modèle, son amour pour Thiès. En tant que fils de Thiès, nous nous inspirons de cet amour qu'il a pour Thiès pour continuer son œuvre et l'œuvre d'autres Thiessois comme Ousmane Gom, parce qu'après tout, ils ont beaucoup fait à Thiès. Et c'est la raison pour laquelle, en quelque sorte, je lui ai rendu un hommage et un hommage mérité parce que nous sommes à Thiès et nous parlons de Thiès. Et l'histoire de Thiès à laquelle je fais référence, elle est, elle est récente. Je ne peux pas être de mauvaise foi. Je dois reconnaître à Idriss Seck ce qu'il a fait pour Thiès et m'inspirant de cette expérience, me présentant devant les Thiessois avec un projet plus ambitieux que celui de Idriss Seck parce que je veux faire mieux, je veux faire plus pour cette belle ville de Thiès. Oui, le sens de cette activité, parce que j'étais élève et j'avais des parents pauvres et j'habitais un quartier populaire. Je marchais des kilomètres pour aller au lycée El Hadji Maliksi. Je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'élève, je ne me souviens pas avoir un matériel géométrique complet. Je sais la difficulté que rencontre les parents. Je sais l'angoisse des élèves à la rentrée. Et j'ai voulu participer à apaiser l'angoisse des parents. Mais à travers cet acte, montrer que l'éducation est un point important dans mon projet pour la ville de Thiès et j'aurai d'autres occasions pour revenir sur mon projet sur l'éducation, mais je peux au moins vous donner une idée pour vous montrer l'intérêt que, que l'éducation que je porte à, à, à l'éducation. Maire de Thiès, l'un de mes points les plus importants c'est de construire à Thiès une bibliothèque municipale. Je reviendrai sur d'autres idées parce que je ne veux pas qu'on me vole aussi mes idées.